xale yi nañ effectivement que tey bëggoon nañu gagner euh, match bi moo tax it bu ñu sax euh, réduire nañu en effet numérique ñu continuer di xeex gëm ni effectivement bëgg nañ gagner match bi ñu ñu wane lolu et surtout sen engagement après mi-temps bi indi nañu changer nañ un peu sur structure bi moy ñu bay adversaire bi ben, ben option moy option offensive c'est vrai que buñu ñakul ñàkkul ñu bañ ni euh, ñu dugalul ñu donc xale comprend comprendre loolu ñu tey maintenant xamone nañu amone nañ xalé au milieu yo xamné buñu yoré ballon war nañ mëna mobiliser adversaire ñaar nit bu ñooñu mobiliser à savoir Moussa Moron bu mobiliser ñaar nit donc infériorité numérique bobu du feeñ xale bi lolu la wone ma ngi koy sant di ko et d'ailleurs euh, raison pour laquelle d'ailleurs mo dugal parce qu'il était dans dans la zone axiale adversaire génn ñu rouge ñu kenn xale yi continuer nañu effectivement seen euh, seen ligue bi ñu xamné effectivement match la bo xamné c'est vrai football euh, infériorité numérique tout le temps moy am boy attaquer comme boy défendre motax ñi ñiy pour tout le temps ñi nek en supériorité numérique xamone nañ amoon nañ xalé yu capable def lolu def nañ ko té match bu am solo pour man euh, match bu ñuy dem non mo mo mo moo solo parce que adversaire la bo xamné fa nga gagné ko c'est vrai que adversaire yi ñuy jouer ño xamné peut-être amuñu ambition je je mesure mes mots adversaire fa ñu gagner leen mais amna adversaire yo xamné ne surtout ñu melni ay jaraf boy dem ak ñom il faut nga waji waaj ko bu baax baax pour yalla def nga meuna jël fa pogne tay ma ngi sante xale di leen gëreum lu ñu wane tey gëm nañ buñ ko wane dëmb seetaan mas jaraaf Teungueth FC ma foi les garçons buñu ñu concentré yàlla war na ci meuna def euh, xewal inshallah allah. secteur bu ci op solo moy récupération parce que gëm nañ effectivement xale yi buñ amé fraîcheur bu baax euh, euh, war nañ meuna def war nañ meuna def différence def nañ ko ma ngi leen ci sante di ci gëreum parce que xam nañ benn Paramètres. paramètre maîtriser dans l'entraînement, malheureusement ce que nous appelons l'entraînement invisible on a mis l'accent beaucoup sur euh, sur la récupération un peu sur euh, début match mais je suis leen si de surtout engagé engagé engagement bi profiter occasion quand même de remercier le le président vraiment qui a tenu un discours aujourd'hui aux garçons un discours euh, vraiment motivant qui m'a qui a facilité effectivement euh, pour moi à ne suis solo bu baax marché.